bokk taalibe yi fi taw yëpp te dara yëkkatiwu leen lu may istajiibu lillaahi wa lirrasuuli izaa da'aakum limaa yuhyiikum mooy ñoom ngi wuyu si wàllu seen tur kon sëriñ bi bu sëriñ bi nee na ñu ngi sant di leen bu baax ci sa yitte ndax mooy bu ñu ko tuddee rek tuddee waa daayira Touba ca kanam moom bàyyi ñëpp ñu ngi tuddee sëriñ sëriñ am solo yi am ci ci tuddee sëriñ mu jàmbaar di nuyu Abdoul Fattah Gueye bi nga xam ne moo jiite daayira bi ak mboolem ñi ci ne ku ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Djibi ak Serigne Moussa Moussa Abdoul Fattah ak ñëpp doon taal bi ci ci ginnaaw yëpp di jàmbaar boo xam si dugg Serigne bi rek tudd ñëpp ndax mooy bi war ngaa sant yàlla bu baax ndax Serigne Touba dafa liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom fayee ko lépp lépp lu mu yéene woon bokk ci dëkkam bu tedd bi itam suñu borom jox kon nag tawféex ji mooy ku yàlla borom jaar ci yow waaye Serigne Touba li mu bëgg kenn mënu ko te am. kon nag ku am tawféex yi mu jaar ci yow war nga sant yàlla bu te it ni ko Serigne am sa waxee kilifa yi jëkk yëpp waxe ko ni loolu rek moo di ci am suñu si àll yi wax na ko moom mii ne ci seen kanam. yitteem ak pastéefam ak taxawaayam tax na ku ko xam ku ne danga xam ne amul dara looy xool ba mu jugee ba léegi yitteem yëpp génn Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci Sëriñ Tuubaa yëpp ci bi soxlawul leneen lu sëriñ bi dugg ci mbirum adduna dugg ci mbirum politique dara itteel ko ñooy Sëriñ Tuubaa fekk maa ci ak xasida yi ak topp tootaan yi Sëriñ Tuubaa bi mel noonu nag ko yàlla def tawfeex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom de wóor na ma ne waxuma ko da seere ko ndax ngeen demee ndax mënuma ko seere waaye nag dama koy seere ci doon taalibu Sëriñ Tuubaa ku topp ci ginnaaw ci Sëriñ Tuubaa képp la jëm. bu ndax kuy féetal ku nekk fu fii nii. wa anna haazaa siraatii mustaqiiman fattabi'uuhu wala tattabi'u subula fataraqqakum an sabiilihi kon moom mii ñu ngi koy ñaanal bu baax li ñu ko seen mu a ko ngeen déggee Cheikh Mawone fi nekkee Serigne laata muy doon Serigne Touba boobu ak Cheikh Sidi nekk dégg ngeen kaddu yéen yëkkati wax leen loolu ñu ngi koy tey ñëpp a wax na ma ne sëñ Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ko bu ma la séeroon nga tàbbi ci kàmb. maa ngi dox ah, loolu seere mënu ko dégg ngeen jëf ñu ci jox Serigne Cheikh mu li mu ne may musuma gis mu def ko. mu yëkkati kàddu soññu tànn bi wax ci xalaat loolu. te mu war a njaboot Serigne Touba gépp nag. muy Serigne Cheikh am Serigne Soine Serigne Abou Serigne Abou mi kilifaam bari na ko boobu ma sant bitim réew mooy soññi tay bi ci liggéey ñëpp kon amul ko des ndax boo limee mooy képp koo xam ne bokk nga ci Serigne bi wala nga yaakaar Serigne Touba kon kenn génn ci kon daal Touba ci kanam ñëpp xam nañ ne dafa wuy si rek di Serigne Touba. duggoon ci yow bi te yow nag tàmbale ma ko di doxee dafa ñëw ngir jëmmal ndax Serigne Touba ba mu nekkee ci njëriñ ba mu wootee ca ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett boo waxoon wax ju am solo jëm wax day gudd ndax jotaay bi nit ñi dañoo sonn waaye lan ca waxoon mooy lii lépp lu ngeen sombati ci lépp loo xam ne lu ngeen soxla na rawat na lu jëm ci néegu yàlla wala lu dem na ngeen ci góorgóorlu ci seen kéem kattan. def ci àll ngeen man ak seen kattan yam ngeen dem na wutu ko ci anam bu seen te ku ci seen kattan yam ngeen tu xaar fa seen jaxam bu baax a wutu gisoo te maa ngi leen waxtali ko lépp ndimbal loo xam bu leen fajale seen aju itam daa leen xañ seen ngor seen xañ leen seen jiw daa koy firi lu gudd la moo ko waxee bi ak waaye kon lii ngeen la sëriñ bi waxoon ne ku la mën a sañal la yéen gisinu sëriñ Tuubaa njàngale moom da ngeen jur rek dégg ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 di ngeen soote dayu waxoon naa ne nee na seen dayu bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag moo yéen ñu ko jiite dañ leen xam bu baax a baax kenn xamu leen ci loolu liggéey sëriñ Tuubaa kenn xamu leen ci lu dëgg li yàq ab daayira rek ñaar rek la moo laale ko waxoon mooy xëccoo dara ji ak ñett ak tàbbi ci mbiru góor ndax mbiru Sëñ Tuubaa ko. boobu ba léegi ni nag yàlla dimbalee li fi jaar bari na lool waaye kenn mosu leen ca dégg tàmbale ci Sëñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen ji itam nag moo xolu tey bi yëpp noonu te Serigne Saliou Mbacké daal di wax ne. fa xolu taalib yi jëm fa la xolu Sëñ Tuubaa yi. te nattu naa kanam taalib yi Sëñ yi dëgg yëpp kooku ci tudd cofee nag yëg-yëg ci am doo kon nag na ngeen am yaqin ci ne seen liggéey bi Sëñ Tuubaa noonu la kon yàlla yàgg. Mm-hmm. ba di ngeen a di Sëñ Tuubaa ci dëkk bi lépp mooy jëf ko ba koy sëñ wax. ba tere Cheikh Issa Diène dafa ne aw na. murid yi dañoo mel ne wagoo saxaar. bu bopp ba doxee rek li ci ginnaaw yëpp dox. dëgg la de kon yàlla dimbali leen ngeen am njiit du dox. Serigne Abdou Lahad Mbacké daa wax ne am na ci ñoo xam ne dañuy dox doxal nga de am na suñu dox doxee bu kii damaa seet lañ ci mën a jël bopp rek ma wax ko. mu ne gaynde rek bu toppee ci ginnaaw bu bu yàggee aw xëy na mu jeex kon nag ku jub dëgmal Serigne Touba war ngaa fexe ba topp ci ginnaaw koo xam ne day wax. dëgg la yéen yàlla defal na doo fi am kon ñi xam ne yor bi mosuñu bu ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tubaab ñoo ko santaane raay bii ak Cheikh Mahmoud Moustapha ñu njëkk a wutu seen tubaab ba mu koy woote ñëpp jàpp nañu lu mënti nekk la waaye yitteem ak procès bu ak doomam moo tax moo taxawal ko bañ mën a tàmbali jumaa ji ak Cheikh Mahmoud Farid bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay seen Tuubaa yi booba jamono yu jafe la ndax dafa fekk crise bi door a jeex mhm. waaye doogu taal bi Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaawam dama xam ne Sëriñ Tuubaa lépp dara mënu ko te am moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu indi ko ci nekkam ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmb ñoom ne dinaa watu milliard wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon ne lu mënut a nekkal mais sëriñ bi dafa xamul miliyaar wala dafa xamul fi jamono toll waaye la nga waxoon ci loo xam waxtaan wu ñu rek ma nangu xol yi ñoo bokk a wóor te xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa te loolu ko gàttal. ginnaaw moom si Abdou Khadre ñëw yàggu fi moom itam yàlla def na liggéey bii ngeen ñëw ngir fas ko def ci dëkk bi. muy ci wàllu assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon sax moo tax ñu bari xamul ko mm-hmm. def assainissement ci ci biir dëkk loolu kon mooy li ci jëkk am ginnaaw bi ci toppaat door ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk génne ci alal def ci lu war six cent mille ci loolu yàgg na ginnaaw bi tam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba Kanko Arenali ak kër doomu Sëriñ Tuubaa yokk ba ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu métti am ci dëkk bi mu wóoloon ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg tàmbali. assainissement bu ci dëkk bi daa gis saa ne dëkk bi ndox mi bari na lool mbedd yi kenn mënu fa jaar nekkoon nag damaa fa séeré yëkkati un milliard def ko ci assainissement bi tàmbale ko nii ba yàlla defee mu xalaat ko yëkkati ko war ko ci def bi ko ki jiite réew mi yëgee président Macky Sall ci la jël fukki milliard tàmbale ko assainissement bi ñu njëkkoon bi ci liggéey kon loolu mooy liggéey yi fi yi fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dëppoo Serigne bi taalibe Serigne yi ñoo ci woon jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne Touba kon loolu képp ko am yitte wala nga am posture wala nga am taxawaay war na leen cee jàppale bu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax ni ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax. ne ko suñu joom Serigne Abdoulahi Mbacké ni léegi Serigne Touba ki joxe ak dërëm ak ki jox milliard ci poche bari na dëgg la ñoo yem ci moom Serigne Saliou Mbacké daal wax ne addiye moo ko doom ñoo yem xeebu ko du ci dara poche boo ko joxee ca laaj kon ña tàmbali woon di joxe ña téeméer ba liggéey ak si cant gi ci ñoom loo tàmbalee kon laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina allaziina anfaqu min ba'du wa a génn ci mbooloo fa ne buñ wax ne diwa diwa fa ne daane kala kala fa ne nga xam ne kër yu mag yu baaxoo rek buñ gisul borom dara ji rek moom daanaka ñax ni mu solo mu ne ñu lim ay tur sëñ bi nee na ñooñu ñeenti woyofal ñoo ma gën a itteel bi ñoo ngi itteel ndax possible kese la yëkkati kon loolu itam man day bàyyi xel xam ne ña a jëf ëpp possible ñi néew àll te mën a jëf kon. ñëpp lañu war a sant dañ sant ñi joxe ñaar ko joxe ñaar téeméer te seen possible ak seen doole tollu fa waaye ña joxe lu bari kon nag ñu sant ñëpp di te xam ne ku ci dugal jëfam xam ne Serigne Touba la ko jëfale seere si Serigne kenn xamutoon te Serigne Touba xam koy boo xool nag Serigne Massamba ñu ne ko Massamba mu ne ko na xam ne ak daam saan la daam saan mooy dencukaay mu ne ko kon dem mbàkki ñu fas yéene doone lantinoo mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko dana la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw ne la si yi kon liggéey Sëriñ Tuubaa nañ xam ne mooy suñu moo war doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii ni waa kër Sëriñ ak bokk yi rafet nañ ko baax ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke daa wax ne ku ñu jox addiya te doo joxe addiya te yaa ngi mel ne ku wut sa waxandew gaal bu mag ku fóot ay yéeréem ba mu njëkk mu denc leen am denc la nga denc ba gaal bi fees boo yaakaaree ne am nga yéeréem bu su waajtaay bi jotee ko accès yére yéeréem nga yëkkati ba ñëpp jox ba yëpp jeex. bu fekkoon nga denc sa yére yooyu waaj si biir gaal bi keroog bi soo rek am nga nee na te kilifa bu jox addiya te bu jox addiya noonu kon yéen da leen dimbale sëriñ am satum Daaru Muxti moom maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko koo xam ne ab taalibe bi kilifa gi jëles yëkkati ñetti na jox ko dem siyaare génn kooku ne sëñ am sa man de damaa amul jaaxle waaye damaa xamul taalib yi dañoo amatul posté wala dañuy gis naan mu ne ko tax mu ne ko kii de nee na man la yaakaar àdduna ak àllaaxira te addiyaam ci man yoosuwul ñaar téeméer te daayira bi mu andi de wóor na ma ne ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe na paas te dana teg lu ëpp junni kon loolu neexutu fi si am sa ko déedéet tey la taalib yi ëpp posté li ñuy joxe Sëñ Tuubaa tax ñu ko joxe. képp koo xam ne ñu ngi la koy jox rek ngir Sëñ Tuubaa nga di ko jàllale ci moom ñu ñu koy jaar ci yow sëñ bi sag képp koo xam ne ñu ngi la koy jox rek te jàllale woo ko ñu jéggi def yóbbu ko directement ci kon seen liggéey bi noonu seen te ngeen góorgóorlu ci a baax nag te xam ne gëm naa ne Sëñ Tuubaa ñàkk na ko ndax li tax mu ñàkk ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a suñu Tuubaa dimbale leen jaaxandu bëgg jëm ci liggéey suñu Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne suñu Tuubaa dëkk bi rek ko newoon fu mu mas waxtaanu 88 bi la mu wax mooy diggam ak yàlla diggam ak Rasulullah diggam ko ñeenteel mu dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ngir liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci def loo te Sëñ Tuubaa kenn mënu ko nax waaye lu ko waay ko gis jeexal ko la wax te ko waxee woon sax ma ba ko sëriñ bi sante kër Touba bi mu ñëpp jaaxle si ba am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa nga xamul sàng ni mu jafee fii ak fi alal toll sëñ si euh, Abdoulaye Fack ne leen néew ma xaw ma sàng waaye yéen itam xaw ma leen Sëñ Tuubaa ndax neewal nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen di jëndee ndax boo dajaloon xaalis bi guerre bi dafa am ci réew mi bato yi ñëwatu kon dara amatu moo ne ko néew ma xaw ma sàng waaye yéen itam xaw ma leen Sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du santaani mu ko dul am te loo sant mu ko dul def sëriñ Saliou Mbacké naat dafa naa nett lu bari di wax ne boo liggéey liggéey na ko ba àgg liggéey bépp lu na ay tontu muy seng yaag tontu yaag lépp ay tontu des kon mooy loolu loolu mooy liggéey sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax liggéey ko yomb na ndax day féetewoo coono bu bàyyi askan kon nag sant leen bu baax te ñaan li ngeen yéen ñëpp daal yàlla leen di jëfiñ tubaab sëriñ bi ngeen di sant leen gërëm di leen wax ne lan leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy li am solo te yàlla defal leen ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa